sant Serigne Touba di fet li suñu aju ci moom di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool kàttanal ko wéral ko dëgëral ko dimbali ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy bi ñoo ngi yëkkati kàddu yu nuyoo jiital ci Serigne Abibulahi Mbacké mi kilifa Touba ca kanam Cheikh Mouhamadou Bachir sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke sëriñ Abdoulaye Mbacke ak mboolem kilifa gi waaye fi teew yëpp nuyu monsieur le sous-préfet ak sëñ Alaaji Ndiaye mi fi teewal bi nuyu tamit mboolem ñi nga xam ne ñoo féete ci gox bi teg ko ci loxo Baye Mbacke mi nga xam ne moo doon yëkkati kàddu yu am solo léegi kon ci ndigalul Touba kanam kilifa yii fi teew jaar tamit ci commission réalisation bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoulahi Mbacke moom Serigne Damaat moo ko jiite ànd ko ak maam Thierno Ndiaye nga xam ne ñoom ñoo doon taxawii liggéey bii ñu ngi yëkkati kàddu yi cant ak mbégte di sant yàlla bu baax sant sëriñ bi ci dimbali gi mu dimbali taalibe Serigne Touba yi ba ñu taxawal liggéey bii di liggéey bu am solo boo xam ne ni ko Baye Mbacke Ndiaye waxee léegi. ne lu mat fukki at tali bi yàq na yàq boo xam ne yéeme woon na tey àggoon nañ ci daanaka rek xam nañ ne ci dëkk bi lañu dëkk ci lañu bokk waaye mel nañ ne xawoon nañoo am aw dig seen diggante bi waa dëkk bi ngir am solo bu aw yoon am solo Baye Mbacké boo laajoon wala ku laaj lu tax lu mat fukki at tali bi am jafe-jafe te defaru wutoon tont li mooy dañoo toogoon di xaar ku ñu ko defaral ñi nga xam ne ñooy aju ci sëriñ bi te xam yoon wii ak ñi ko xamut ñëpp dañoo maase toog di xaar ku ñu defaral yoon wi looloo tax mu toog fukki at defalu ko bi ñu maase yëpp ne war nañ koo mën a defar te mën nañ koo defar bi ñu ko songee defar nañ ko loolu nag mooy doxinu Touba ci kanam loolu mooy njàngaleem sëriñ Touba ndax mbir lu mu nuru nuru lu rëy ci ñaar rek lay sottee mooy dangay ngay ne man nga ko ba noppi ñeme ko te loolu mooy li sëriñ bi jàngale ci yitte ak pas-pas ak bañaa bañaa ñéeblu sa bopp ci dara ñoo ci sant yàlla bu baax muy liggéey boo xam ne dafay firndeel ne mbir yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ci ay du ma ko tuddee ay jafe-jafe waaye yi nga xam ne moo fi nekk tañ war koo defal lu baree baree bari ci li tax mu yeex mooy xaar bi ñuy xaar kuñ ko defal te mën naa nekk waaye li nga xam ne tamit moom lañ ci war a jànge mooy mbir yi rëyu diisu àggut ci niveau bi ñu koy àggale liggéey sàngam dafa diis liggéey sàngam dafa jafe mënu leen ko loolu ku yaakaar sëriñ bi waroo ko dégg li am kay mooy lépp mën naa ne te lii am lépp mi ngi daje ci am xel xam-xam doole ak alal yëpp nag sëriñ bi am na ko yëpp daje na bi ci mujjoon ci tolluwaayu jamono nii ci tolluwaayu jamono jii mooy ak nosu lu ñuy wax organisation te ci taw fiixi sëriñ bi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu tëwéer hmm. nosu googu am na te mooy Touba kanam li des mooy ñu gëm ne mën naa nekk buñ ko gëmee lépp mën a ne kon loolu ñoo ngi ciy sant bu baax fii nii bokk na ci lii tax ma wax ne nañ ko gëm mooy Baye Mbacke bi muy wax léegi def ne moom ak ñu mel ne moom gëmoon nañ ne Touba Kanam mënuñoo liggéey liggéey bii kon faaw dañoo war a gëm ne mën naa nekk liggéey yu rëy yi fi nekk li fi nekk di nuru ay jafe-jafe noonu waruñoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy toog ci kaw pexe yu baree bari ba noppi di jàmbat ay jafe-jafe grand projet yi ngay dégg Sénégal yu mag yëpp financement bi fan lay jógee li ëpp ci financement yi coopérative dëkk sangam wala aide wala collaboration wala crédit ci financement yi mag yi yoon wi li ñu soxla ci financement pour maa def grand projet yi am na fi te loolu firnde ji bari na lool lool lool jumaay Masaalik benn la ci université bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha taxawal ñuy ñaan mu fekkee ak àggam doxal ko ba la ko ca soo ci la bokk kon lépp mën naa nekk li am solo te war a am mooy gëm gi gëm gi moo moo moo war a am ñu gëm ne mën naa nekk ñoo ngi sutal yàlla bu baax a baax nag ci taxawaay bi nga xam ne commission réalisation taxawu nañ ko fii te sëñ Omar Dieng mi nga xam ne mooy ingénieur bi doon dikkaat léegi ci wàllu technicité ndax léeg-léeg am ñu jàpp ne te loolu sax euh, wëri su koo dégg wala ba bëri su ko bàyyi xel jàpp ne liggéey yi du tegu ci xam-xam liggéey boo boo booy natt ba xam tegu na ci xam-xam wala teguwul ci xam-xam yaa ngi koy ne ci résultat kon ñoo ngi sant bu baax réalisation ci seen taxawaay ci yitte ji nga xam ne def nañ ko ci liggéey bii sëñ Omar bi ngay wax mënoon ngaa ñëwaale ci coût bi nga xam ne def nañ ko fi mi ngi tollu ci 311 millions 989 mille yu teg weccee 311 millions 989 mille moom la Touba ca kanam def fii ci loo xam ne moom la génnee xaalis xobbet def ko ci directement am na ci loo xam ne nag duñ ko calculer waale waroon nañ sax léeg-léeg ñu koy dugawaale ci ci évaluation yi mooy li nga xam ne dañ koo jaayante ndax liggéey bi yàlla dogal na ñi ko taaw ñëpp nekk ci bopp bi Touba ca kanam du leen fay dañuy liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax te loolu bu fekkonte ne natt nañ ko xi xayma ko dugalaale ko ci liggéey bi montant bi dana ëpp loolu kon loolu bariwut ci liggéey bii li tax bariwut mooy yàgg gu euh, yoon wi yàgg te defaruwut woon waaye yàqu gum yàqu woon ba ba xawee soon cee ñaaw njort ci ne daal lii ak defaroon moom yombatu loolu boo ko boolee day jox coût bi beneen beneen maanaam montant bi ñu ci def da koy joxaat beneen dayo boo xam ne moo gën a kawe. ñu ngi sant yàlla bu baax nag di wax loo xam ne ci Touba kanam am na lu ko dal loo xam ne. ñëpp war nañ cee bàyyi xel mooy Touba ca kanam bi muy doog a tàmbali laaj bi joxe bi dafa jiitu woon laaj boobu Touba kanam liñ ko daan jox moo ëppoon liñ koy laaj léegi nag mbir mi daa wëlbati lii xëy di laaj Touba ca kanam moo ëpp liñ koy jox mm. jamono ji may waxee jeen mm. lii dikkal Touba ca kanam di sàkku ci moom mu may leen am ndox mm. Touba ca kanam amul doole ju mën a lijjanti loolu donte luyee nañ ay oto camion si tamit yaa ngi woon delluwaay attanu ko li koy dikkal ci sama mbedd daa taa nañ ma ci dimbali ndox ma génn wala nañ ma may suuf Touba ci kanam attanu ko li ñu teg kon war nañu gën a farluwaat te kilifa yaa ngi ciy soññee di ci xal ay yoon yuy tax loolu mën a nekk day delluwaat ci gëm-gëm gi ma waxoon ngir bañ a guddal nag fi ma ciy jeexale ci kàddu yoo xam ne xay na ci sama bopp laa koy jëme ak ñi nga xam ne ñu nag maa ngi ñoom a ànd liggéey bi tama sañ koo wax ak ñoom mu nekk soññante digg diggante dong ak morom ja mooy jëmmi tali bii ak yeneen yi yi ñuy def yëpp yitteelu sëriñ Touba ndax sëriñ bi àdduna taxu ko woon a jóg lépp yi àdduna taxu ko woon a jóg waaye nag na lu ko ci yitteel dama ta bàyyi xel mooy xidma xidmatul muslimina gi nekk ci biir liggéey ndax mbir moo gis dafa am ñaar ko composé mooy jëmm ak ruux jëmm ak ruux jëmm ji mooy jëmmi tabax bi ruux gi mooy liggéey liggéeyal xidma gi ci nekk mooy jaamu yàlla gi ci nekk lan yanaala allaha luhuumuha wala dimaaguha walakin yanaaluhu taqwa minkum loolu lu mat a bàyyi xel la kadalika saqaraha lakum li tukabbiru llaha kadalika saqaraha llahu lakum li tukabbiru llaha ala ma hadakum yàlla moo nu kat moo nu dimbali tawfiix di nu suñu borom defal tàggatal ñu mbir yi ba ñu mën a taxawal lu mel nii gindi ñu teg ñu ci yoon loolu la sëriñ bi bëgg ci liggéey bi waaye du jëmmi liggéey bi la cay topp nag mooy wa kon bu ma ko soñoon dama nag jërë ngeen jëf yàlla nañ dugg ci bay bi sëriñ bi muy wax haza wa inil yawma zo ridai wa zo mahabbatin li haulai salaamaaleykum wa rahmatullah ndax soññe bi kawe na te xóot na te dëggu na te lu bàyyi ci sëriñ Tuubaa moom saa soo ko déggee demee mosoo ko déggee day yeesaat ci yow damay wax ne waxe sëriñ bu lépp lu ko tibbee ci alxuraan alxuraan saa soo xëyee jàng ko bu la suñ borom suñ borom defalee ak tëgg saa soo xëyee jàng ko dañ ci dégg loo ci dégg doon ci démb sax waaye waxi Sëriñ Tuubaa fam bàyyi ko ndax koo xam ne ISRA kat a ko tëzzaal suuf baax yi wala suuf baax yi wala ay di saa soo yëkkatee sa xalima aras ak kursi jàng ku nekk ne say waxee te noonu lay def sëriñ bi daan wax ne. waxtaan ma damay jàngale ku dégg kàddu yi xam ne jàngale kon sëñ bi daal sa wax ji rafet na bu ma soxla bu ma ko sëñ bi joxoon digal ak li ma sëriñ bi nii kon dama koy wax mu ñaan ndax lii dara mënu ci dolli ndax bi sëñ bi Fataa Gueye waxee kàddu yi mu wax ak ni mu ni mu soññiwaat ñëpp ndax Touba ci kanam day àll Sëñ Touba damaa jàppoon loolu dara mënu ca doole waaye bi suñu daxat waxee man sama jëm boobu damaa yóbbu fa kon nag sëriñ bi suñu yëngu ñu sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ci sa loxo nga àggal ko ci Kanam yëpp di leen sant di leen di nuyu sëriñ Cheikh Oubalou Cheikh Maodo Fadi mi nga xam ne mi ngi toog ci jotaay bi te ànd ak liggéey bi di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Mbacké si mu doon yëkkate kàddu léegi. wax jot na sëkk di nuyu sous-préfet Mar di ko sant moo tam ci taxawaayam ci dëkk bi ndax wax dëgg bu jàppandi mbir la dajee naa jamono yu metti waaye gantu de ku nangu la ku mën a nekk waa dëkk moo tax itam mën a déggu génn kon ñu koy soññaat ci loolu di sant bu baax nga xam ne ñoom ñii que li ñuy def ndegam yéen la war ñu jug di leen ci kattanu kon lépp lu koy jàppandi rek war nañ ko def ndax li ñuy def yéen la war a yéen ko war def kon buñ leen ci gàttal rek dina ko defal dara lu ñu gànn ko wut ci am gëm naa ne lu wut ci am maanaam itam na ndax le sëñ Abdoulaye Mbacké daa wax ne foo déggee ñaar di xëccoo rek xamal ne adduna tax waaye xajal ma penk bi dama jiidoon boo ko dégg kon fu xëccoo rek dara jawal alal la lii nag yëfi sëñ ci di nuyu Alxaaji Fabila ci ñu fi teewal sëñ bi daal te mi nga xam ne mooy commune bi jiite commune ndax lépp day andi sëñ bi kon li ci am solo rek di loo xam ne mel ni bi la te kenn mënu koo xàjjale ñu fexe ba dajee la nekk wenn say moo di ci gën kon nag alhamdulilah rabbil alamin ndax Cheikh Mawud Mountakha kat toog naa sëñ bi daal dina mu wax ko ne daaw bu ma sonal lépp lu ngeen def kat na ngeen ci déggoo ak ñu yor nguur gi déggoo ci ñebe kii bu ma sonal jenn juyoo ba monsieur moom nag kon ba mu ko bëggee rek ci la ko yàlla def ndax mel na yàlla def na ko ci ndax bokk leen fi ngeen jëm rek ndax ñii dañuy liggéeyal àdduna yéen liggéey seen kii liggéeyal àdduna li muy séntu mooy ak cant ak pay ak jaajëf ki liggéeyal Sëñ Tuubaa nag li muy yaakaar ëllëg la koy xaare ndax Sëñ li ñuy séntu ci di ko liggéey ëllëg a tax kon nag yéen li ngeen di liggéey Sëñ Tuubaa ngeen koy liggéey te ëllëg la seen koy jëm waaye Sëñ Tuubaa rek. day gàttu bi njëkk la ko Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne ko ba may ba may ñëw di jaayante yow lu toll ne kaw kawaru bopp sax jàpp moom dara ma topp ci ko àdduna mag ñu noonu lañu àndi woon Sëñ seen daayira bii nag sa émi tawfiix la loolu sëriñ bi di wax naan tawfiiqu haadin qaadahul ilhaamu qad abdaya lii maaluhul bihaamu waaye seen sa daayira bii xalaat yii day loo xam ne ñëpp ko daa gént di ko xalaat te kenn jàpputoon lu ma nekk la waaye nag nekk na waa xamoon mas muus te ci seen loxo la ko yaa di jaarale kon nag loolu tawfeex ak pagdef kon nag na ngeen gën a sant yàlla ndax keroog la la Cheikh Mouhamadou Mountakha seereel ci kanamu àdduna sëpp ndax daa wax na tëggu la de waaye li ma xam ci yow laa xam ba ngay jógee si jotaat naa ko loolu la seerewaat si njëkk mu de fàddoo la la waxaat neen dama laa jàng ba dama neen dalaa jàng ba xam na waaye xam ne ne position suñu tubaab képp moo ne ci moom xam na ne ko amul doogu ba li am te kenn mënu ko ñàkk mooy ak doo ak position suñu tubaab neen gis na ne kenn ëpp loolu kon nag eh, yàlla yàlla yàlla yàlla tubaab gàttu ñu ci liggéey bi te ñëpp gën cee te le sëriñ bi waxoon yaa rabbi ij'alil muridina maa fi xisnikal xasini wa chamlaj maa daayira bi yàlla ci yàlla ci si ba daq lépp loo xam ne gàllankoor la amu ci sax waaye yàlla bu mu ci amu ko ndax kat yaakaari yoon wi la yaakaari yoon wi nag kon ne ñëpp na ci ñëpp gën a bés def parce que gën cee defu dogg dogg ndax sëriñ bi kat ku léegi keroog nan àgg na ci xaal boo xam ne xam ngeen la ma wax ñor la kon ku ci bokk ku ne na nga xam moo wuteeg suñu góorgóorlu di seeral Sëriñ Tuubaa da nga jëf bañ a gëstu démb loo jëfoon démb di ci soññ taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp itam la nit ñaa ngi soññ waaye soññee du doy ndax fa sakkee fii la di kira tan faw moom ñi faw dañuy fàttali fàttali gi mënti ñàkk kon ñu ngi ci soññaat taalibe yëpp di sant bu baax rek ci ni ngeen ko seetoon ni ngeen organisé day bi bàyyiwuñ kenn Serigne Cheikh bi itam ñu ngi koy sant di ko gërëm ci positif ma taxawaay ak mboolem ñu ci bi ñëpp sëñ bi fataake yi ñooñu ñëpp ay jàmbaar lañ yoo xam ne danga xam ne ñii Sëriñ Tuubaa rek la ñuy gëstuwuñ dara lu may ngërëmu Sëriñ Tuubaa diggante suñu ayib ak suñu daxar nag sana suddo aduduka bi ak ñaar seen ànd bi dafa jàpp naa ne pàggu defu la wax na wax ju xóot gis na ne ci seen ànd bi bàkka ñëw ji te njiit lu bëggul àdduna ak ak topp yu añaanu da sëñ Njaay gën a waxoon sëñ Abdou Dahar loolu mooy daan comme sëñ daal di yooyu tam gën ci ginnaaw sëñ bi gën ko jàppale nii ngay def rek ndax liggéey bi na ko sëriñ bi waxoon njiit mënta ñàkk bu njiit jiitoo ngeen topp ci ginnaaw lépp dana jëm ci kanam ndax li ci sëñ noppi la te gëm naan loolu am ndax man mi xam sëñ bi ñëwee laa ma sa am ci ndax danaa koy fàttali ku ma ak kër gi ak daara di ko jox di ñoom ñu la ko jëkk defal loolu yàgg na quatre-vingt-quinze wala seize la kon xam ngeen moom xolam bi loolu Sëriñ Tuubaa ñëw ci biir ak dëkk ak i donga ak kër gi lépp nga roye ko ci la sëriñ bi defaloon suñu gaaw Cheikh Abdoulaye mais itam xam na ko am na am lu ëpp fukki at yoo xam ne daanaka ay bis bu jot këram laa daal réer mooy sëñ bi soot bokk nañu fanaan ba tey kon xam naa ko kon gën naa liggéey bi moom daray adduna wala daray bakkan wala daray seetaan muy ca tàmm mu mënta def dara lu weesu jëm ca kaw ba àgg fa mu jëm ndax jëf ji ngeen jëf kat man mu ñëwoon teg si xeer wax dëgg bett na xalaat xalaatuma woon ne liggéey bi dana àgg fii ci rafet waaye lii kat ku ko réalisé war ngeen a gëm ne fenn fu ngeen mënta àgg ci àdduna amut lenn lu ngeen war a mën a dëkk bi ndax lii moom réalisation bu rëy la boo xam ne dana gën ko kawe waxuma rek la ngeen jëbbal sëriñ bi kaw muy Batiwa ba ci université waaye tali bi ku fi jaar war war ngaa gëm ne war ngaa maam roy ci na Cheikh Mouhamadou Moustapha defoon ci ba muy taxawal raay ndax lii kat jëf li joo xam ne du jëf ji tuuti te fii jege na jumaa moo tax daaw bi ñuy xool laa ngi leen El Hadj Ndiaye mi sama seen jiite ma doon tubaab daaw waxoon naa assuré leneen. tali bi jiitu ci gën a farata mooy tàmbale gaaw ndaw ba si fi yàlla def bi nga xamee dem naa ba nar a yéex moo tax bu ngeen ko waxee ma laaj ci sëñ bi digal sëñ bi joxe ci digal moo wax leen kon neewoon ngeen da ngeen ko def waaye yii fi état du gaaw kon bàyyi leen ñii nga xam ne li ñuy def mën naa gaaw ñoom ñu def ko ndax fii kat àgg na ci mooy taxaw ndax mbedd mi am na ay at yoo xam ne kenn jaaratu fi ku fi jëli sax dañoo war teg tam jéggi jumaa kon nag li ngeen di def léeg-léeg sëñ bi waxoon nee na jëfandu leen àdduna sëñ Tuubaa ngeen di jëfal sëñ Tuubaa nag ku koy jëfal na nga xam ne pay gaa ngi sa kam ndax sëñ Tuubaa laa ko liggéeyal ba sama naw la daw ma nopp mos ko di bët mos jënd asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala amiin